ñu ngi leen di nuyu yéen nga xam ne ñuy euh, teewlu ci Seneweb di nuyuwaat leen également bépp micro boo xam ne yaa ko teg fii mu di site yi nga xam ne tey ñoom ñoo wuy si ci li nga xamante ne ni moom moo di initiative bi nga def mu di joxe ndogu balaa ñuy xuus ci waxtaan wi dañ lay euh, jox micro nga nuyoo teg ñu ñuy seetaan euh, ñu mën a waxtaan yow lan mooy initiative bi nga gàmm. waaw maaleykum salaam sista maa ngi lay tamit di la jaajëfal di jaajëfalu si euh, si organe de presse sax laay wax yi fi nekk yëpp si Blindé Blindé yi si initiative bi ñu def di ko def chaque année di jaajëfalu si ñi nga xamante ni tey ñoo leen teew te amaana bokkuñu sax ci biir Blindé Blindé wala bokkuñu si ci biir communauté CBI ñoom ñëpp maa ngi leen di jaajëfal di leen jox seen wàccuwaay bu baax a baax d'accord Ngaka huitième édition nekkul benn fan bu ñaari fan donc huitième fois ngay organiser ndogu boo ñu mënoon ñëwaatal bi bii mooy huitième édition bi mais du man maay organiser nekkul nekkul man maay man lii li koy organiser tey mun naa ne blende blende yi la nekk fépp aussi ci Sénégal et chaque weeru koor su amee da gis ni dañ koy def Ziguinchor. gis naa ni def nañ ko def nañ ko xombal gis naa def nañ ko def nañ ko Kaolack tey aussi di gis bi nga xamante ni Dakar moo ko def ndax ñoom la ci seen biir président baa ngi nii toog chargé de communication baa ngi toog mën naa ne ñoom ñoo koy organiser seen xaalis la ñoo koy dajale ñoo koy def mën naa ne man ba dernière minute laa ci bokk def sama participation mais seen yëf la ñoom donc tey bu tollee ci huitième édition

nañ ko def Kaolack wala nañ ko def Xombal wala nañ ko def Ziguinchor dañuy xëy rek gis ne ren am na beneen région bu ci dooleeku boo xamante ni ñoom tamit ñu ngi parce que am na benn plateforme boo xamante ni ñoom ñoo ko bokk di ci waxtaan di ci jël seen ay initiative di ci def lépp lu ñu bëgg a def moo tax à chaque fois am na peut ñoo xamante ni ñi ngi ba Kédougou wala ñi ngi ba Tambacounda peut-être ñëw Dakar. mun na compliqué si ñoom naam la mu nekk am na ñoo xamante ni tey ñu ngi fi si région yi la ñu jógee ñëw Dakar dina compliqué si ñoom ñu préféré ñoom organiser ko bopp ci seen ay donc mun naa ne seen propre initiative la ñoom seen wàllu bopp d' accord kon du ñàkk ma laaj par rapport ak organisation bi contrairement ak ni ko ñeneen ñi di defee gis nañ seen dogu dafa waroo ak dogu yi ñuy xamante gis ci mbedd yi. bu ñu bëggoon xam tey lan moo waral Ngaaka Blindé ci huitième édition bi mu jël décision wàcc ci hôpitaux yi jàppale leen ci ordonnance jàppale leen ci yenn keneen lan mooy jubluwaay bi. waaw hôpitaux yi moom je peux dire que ginnaaw yàlla sama loolu moom sama initiative bopp la ak sama benn pro bi nga xamante ne ñoo koy woowee MTO bi ñu waxtaanee gis Sénégal dafay dañuy gis nii bu weeru koor jotee ni nit ñi di amee esprit de partage de jël ndog fii joxe fee ñu gis tali yi et da nga gis ne loolu mi am partout ci biir réew mi dem na ba nekk tendance tendance yi mooy man damay dem ñu jox ma ndogu ma jël ndogu bi suba man ma jox waat ndogu ki may jox ndogu suba mu organiser waat beneen ndogu donc dafa dem ba nekk tendance et je me suis bëri na ay doomu aadama yu nekk ci hôpitaux yi ñi nga xamante ni ordonnance bu 3500 dañuy am jafe-jafe pour jënd ko ma yàgg ko xam nag yàgg ci def li mu mën as tuut mais su ma demee ba gis ni ndaw réew mi di joxe ndogu ci tali yi jël ay camion def ci moom fees mu leer na la ne kenn kuy organiser ndogu ku ci nekk rek di nga dépenser minimum 500000 voire 1 million. dem plus et 500000 boo ko jëlee dugg ci benn hôpital ci Sénégal mën nga ci dimbali minimum 20 personnes minimum 20 personnes et peut-être aujourd'hui étant benn acteur loolu laa ko mun waxee de de la culture urbaine wala ma ni disons tey ma nekk benn influenceur entre guillemets jeunesse bi di bàyyi xel ci li may doxee li may def yoon la. pour ma jéem a def premier pas dugg ci hôpital yi xool patient yi fa nekk après équipe bi tamit ñoom blende blende ñëw jàppale ma si mais je pense que ñoom ñëpp tey dugg ci biir hôpital dalal jàmm ànd ci ak man ak ñi ma buggee ñëpp ku ci nekk am nga loo yëg et yëg-yëg boobu laay bëgg transmettre jeunesse bi ba kooru déwén wala même bu dul koor mais gis mu nekk tendance association bu nekk di xeex pour jàppale malade yi nekk sa koñ acteur disons bu nekk di xeex pour jàppale malaat yi nekk sa koñ wala ci dëkk bi ñiy jaar Louga ñuy jaar Tamba ñuy jaar principal ñi dem Dalal Jàmm ñiy Dominique ñi waa Baudouin bëri na ay hôpitaux yoo xamante ni Fall tey dal na moom su si doon wax du ma fi jóg benn patient bi nga xamante ni dañ ko bàyyi rek ci lalu hôpital bi mu tëdd parce que depuis 15 jours mënul jën ordonnance yi nga xamante ni moom la médecin yi war a jël pour defal ko ay soins nii la ma ko waxee kon kooku bëri na ay moroomam yu mel noonu je pense que mën na ma wax tout le temps na nekk man mënoon na nekk yow mënoon na nekk keneen ku dul nii waaye nit bu nekk ci loolu hôpital feebar ñàkkul lu mu fajoo du tal lu mu lekk donc loolu moo nekk initiative bi ma ànd si ak ñoom def. c'est vrai que nga am initiative ci beneen secteur lan moo tax nga choisir hôpitaux yi ndax dafa am lu lay fàttali wala. fii képp yàlla bëgg hôpital dina parce que ñun ñëpp xam am nañ fu ñu jaar comprendre nga je dis am naa aussi histoire ak euh, ak mun naa ne sax loolu moo motivé de base parce que li ma dal mënoon na dal ku nekk jaar naa fa xam nga subir naa nit doomu aadama war a subir suñu borom dimbali na ma suturaal na ma ba génn naa ci ba tey may dund alhamdulilah waaye nit ñu mel ni ñun di dañuy faral a chaque fois bu ñu génnee suñu buntu kër fekk ñaari nit ñett toog mun na am 10 heures ba heure bi ñuy jóg ndax dañuy naajee dañuy naajee tëdd di ñu xaar. mais bu nekkee cinq personnes ngay fekk sa buntu kër quatre yëpp ordonnance lañ leen présenté sama doom wala kii ne la sama yaay wala kii ne la sama tànk bi wala kii ne la sama bopp bi et sooy xool bi ordonnance yi lay wan matul cinquante mille xaalis la du xaalis. pour wala nit ñi dañuy sonn waaw dañuy sonn ñu si bëri. très rare laay xool benn ambulance mu mat cinquante mille yu ci bëri ay douze mille des fois sax ay huit mille ay treize waaye après ban réaction mais am beneen benn réaction dund ko war leen war a jàppale parce loolu moo normal bu fekkee romb nañ trois buntu kër ba ci sama buntu kër xalaat ma c'est parce que am nañ fi yaakaar yaakaar boobu ñu am aussi lu tax yàlla def ko yàlla xam na ko su ma lu ci bëri boobu lu ci bëri bu ñu ñëwee am yaakaar boobu ci man dañ ko fi fekk te Cheikhul xam na ni doomu aadama du am yaakaar ci man fekk ko ci man te dama ko ko parce que yàlla moo xam lan la ci und loolu bokk na ci li ma gën a incité à chaque fois may bàyyi xel hôpitaux yi di xool lan la ñu war a def et ci koor gi pour man benn occasion la man ma nekk je dirais pas première personne parce que am na ay nit yu koy yàgg def même buñ ko waxul mais ma nekk nit boo xamante ni dinaa porter combat boobu entre guillemets pour influencer jeunesse bi ak les bonnes volontés les autorités les artistes les acteurs tout le ba ñuy xalaat ni war nañu ñu a dimbali ñu nekk ci hôpitaux yi parce que patients yi nekk ñu ngi dund que pare nga de temps temps ngay dem ci hôpitaux yi di vérifier ngir jàppale leen comme ni def tey waaw bien bu baax ci kàttanu yàlla mu lay téye suñu borom lim ñuy may jugu fi ba tey normal xaar kooru kooru kooru dër te je pense que loolu di ko gisaat ay fan yu néew tey budget bi ñu prévoir def ko ci hôpitaux yi dem nañ ba ci biir dépassé ko ndax xam soxla bi nekk ci ñoom ak parallèlement joie bi nekk ci ngay dimbali nit des fois da dugg ci benn lan hôpital bàyyi nit enveloppe génn ba sori doom ji dab la wala yaay ji dab la di la wax ci liñ ko fekk munoo xam ni mu toll xam nga xam yaa may dégg dañuy dugg ci ci ci ci ci lalu hôpital dafa ëpp offre ki ngay ki nga dem ba ba bàyyil ko benn enveloppe ci lalu hôpital dem ba lu yàgg mu génn dab la wax li nga def ni mu toll ci moom dafay fekkee doomu aadama nga nga jëloon tey réussir a marqué pour cent moom dama naan déedéet loolu moom. <laughs> am amaguma ko balaa ma ko doon réussir à cent pour cent dimbali ñu nekk ci hôpital bi yëpp waaye mënuma ko ma mën rek laa def. am naa satisfaction parce que xam naa ni ànd naa ak blende blende yi yóbbu suñu pour bañ a wax ndimbal mais yóbbu suñu suñu participation ci ay nit yoo xamante soxla nañ suñu participation dem na ci ay nit yoo xam ne leer nañu ñii ñii nit ñi recevoir suñu ay suñu ay suñu ay participation soxla nañ waaw. kon ban cas moo la gën a ko woon bëri na yu yëgal sama xol ba yaakaar naa ni dem na ba am yoo xamante ni jooyloo na ma ci waaw jooyloo na ma ci ci biir hôpitaux yi. waaw parce tuuti nit bopp buy métti sax li ngay yëg yow yaa xam dem naa yaakaar naa ci fi ma a dugg xale yu ndaw ñu am cancer waaw dem naa ci xale yu ndaw yi nga xamante ni ay maximum ki ci mag 15 ans am ñi ay 6 ans 7 ans am cancer fekk leen fekk fa ay waajur am yaakaar boo xamante ni suñu borom rek nga koy mën a wax ma itam. traitement yi nga xamante ni ñu ngi koy ñu ngi koy subir foofu lu mu toll ci koppar ci fi Sénégal toll raar na ay nit yu mel ni ñun dëkk ci banlieue bi xaw a néew doole yu nga def nii nii doole seen waajur yi def toog di leen xool mu dugg saa fonte ak ñoom waxtaan kaf ak ñoom kaf xale yi da ngay xam ni xale yi xawuñu sax day sàll lu xew mais yaakaar rek ngay am dugg naa foo xamante ni aussi bi ñu ñëwee ba ay si médecin yi dañ ñema deux personnes wala trois parce que situation bi dafa délicate so ñëpp mënuñ ko xool et dëgg loolu mënu ma la ko nettali mënu ma xam lu ma xam lu ma la koy nettalee lu suñu maanaam lu suñu borom nattoo xale bu jigéen bi ma gis ci hôpital yi mënu ma la ko expliquer loolu nag bokk na ci lu gën a tuur sama romb génn naa fa presque trente minutes su may dox si yàgg nit ñi dañ koy seetlu mais damay mel ni niir parce que li ma gis ni mu mel ndeysaan mun ma ko nettali sax nii si ni mu waxee parce que mun na heurter sensibilité doomu aadama yi mais foo xalaat rek ni feebar mun na faa àgg gis naa ci ci ci bu jigéen boobu jigéen nañ tamit foofu dem ci jëloon naa nag xaw ma ñu leen di woowee xaaral ma xaaral ma xaaral ma vérifier ko néew quelque chose la. néonatologie ah médecin yi je pense noonu lañ koy waxee foofu ay xale yu ndaw aussi toujours ñuy am ay trois mois deux mois ñooy am malformation ay xale yu ndaw ñuy am ay deux mois trois mois dañoo judd am ay cër. déformé wu ci ñoom ci ni ma ko mën a waxee ci olof yi nit ñuy dégg ñii ñoom la ko médecin bi waxee dañuy judd mais duñu am yoon bu nit di tuuree ndox dañuy obligé opéré la ñiy judd seen loxo yi bañ a nekk comme loxo nit normal ay xale bébé dañuy obligé opéré la bi ma duggee maa ngi leen di gis ñu dugal xale yi ci ni ah lu mu tudd couveuse maa ngi doon soo ko gis dama doon dara wax lu mel ni urne yi ñuy ci voté ak yooyu voilà ah noonu la tudd couveuse couveuse couveuse couveuse mënu ma leen woon jege dama leen doon xool du loin ñu may wax ni xale yi fi nekk chaque jour chaque jour bi fi nekk trente mille francs la ñuy fay par bis mais xoolal trente mille francs ak fii réew mi toll jamono ju metti ji ñi ko mën ci réew bari bariwul de trente mille francs par bis ñooñu ñooñu ñëpp bu leen ñun sénégalais ci boppam dimbaliwul bëri nañu si ñàkk seen ay bakkan ndax ñàkk ay moyens yu fajoo su ma doon lim nag fii ba maanaam xëdd di jot dañ fi jóge mais bëri na expérience yi ñu dund ci waaw mais sa xel may na tey ngay dem ci hôpitaux yi pour seet ne yittewoon nañu peut-être li nga leen doon dimbale déjà boo nee Ngaaka Blindé rek mais feneen la nit ñi que Ngaaka Tekki Blindé est-ce que fier na tey ci sa bopp. ah loolu tur la rek yooyu ay turu <laughs> ay turu kii la rek ay turu genn la rek quoi en du du du ci bon je pense que weesu nañ ci Sénégal bu ñuy bu ñuy ni mu tudd je pense que jóge nañ foofu. dañoo toll ci Sénégal boo xamante ni lépp lu doomu aadama war a ñaan na ci boole aw xol bu bu bu mën a yëg quoi parce que xol bu yëg dafa dafa dafa dafa jafe xol bu yëg et man suñu borom dimbali na ma ma am xol bu yëg satisfaction bi ma am nag mooy lii nii satisfaction bi mooy ñenn ci yéen bi ñu yëgee initiative bi. amul kenn ku ci jox cent franc da ngeen a bàyyi seen ay idée yëpp ñëw gunge ñu ci initiative loolu ngeen am te loolu moo ci nekk seen contribution parce que amaana li may wax ni sérieusement tey laa koy soog a xam ni ma koy nettalee peut-être mën na tax ay yeneen sénégalais soog ko xam tey ba suba yeneen xale wala yeneen ndaw sol seen dàll dem ci hôpitaux yi ndax li ngaa ko leen di doon expliqué loolu nag moo ci nekkoon sama moo ci sama attente sama réussite ci initiative bi mooy suba wala ginnaaw suba wala ginnaawaat suba ma gis ay ndaw yu jug dem hôpital Grand Yoff wala ñu dem ah hôpital Philippe Senghor. wala ñu dem principal wala ñu dem et cetera et loolu moo si sama sama satisfaction bi ma ciy xaar. d'accord fi may jeexalee ba moo di gis nañu ay nit yu bari bari yoo xam ne dañuy taxawal maanaam ay fans club te duñu mës a gis seen artiste sa diggante ak ñi nga te ne ñoom moo di ndaw topp sa ginnaaw mu di leen def leen waaw day nag ñoom ah du ma ne du ma ne Sénégal bëriwul ay. man damay bañ a wax fans du wax fans dama wax Sénégal bëriwul ay artistes yu am ay frères mais gëm naa ni raar la trop ci ci réew yi ñuy am ay nit yu mel nii yàlla xam na ko am na ñoo xamante ni depuis 2009 ba léegi. waaw ba may soog door ñu fi ba léegi su ma doon léegi. damay juum mais ki ñi may wax xam nañ parce que maa leen di gis ñoo xam ne depuis 2009 ba léegi ñu ngi fi. petit ba grand. waaw petit ba nag sens bi ma am mooy ñoom dañoo dem ba seen biir lañ far maanaam dañuy demalante ay xew dañuy tuddalante ay doom ñu ngi takkante seen biir. ah dëgg nag. <laughs> yaa ngi dégg donc donc noonu noonu ñu mel seen biir mooy nekk sama sama doole man yàlla xam na ko et à chaque fois damay gis du ñuy màggee ak di màggale sama liggéey gëm naa ni nag du yëfu artiste ak fans mais yëfu frère la rek ak frère su ma amee lu lu ma metti dañ koy am mais ñoom tamit suñu amee lu leen metti dama koy yëg donc maa di jaajëfal di leen def leen déglu bu baax a